yow yaa yow Thierno Alassane Sall yaa possible yow jàpp nga ne yàgg Aminata Touré bokk ngeen gis-gis bokk ngeen combat non am na combat yu ñu war a mën a bokk yàgg Aminata Touré sur la question du troisième mandat pourquoi mënuñu bokk combat votre union peut mais est-ce que ni nga adopté Abdou Mbaye adopté nga ko Aminata Touré. loolu euh, euh, kii. yaa ngi politiquement yàgg Abdou non non non xaaral. moom bëggul samay question politiquement. waaye rax nag ñu ngi may envoyé message nee nañu nag. politiquement léegi naa leen posé question yow loo xam ci lu xew. non non xaaral xaaral euh, Thierno. politiquement politiquement jege nga Abdou Mbaye. bokk ngeen xalaat ci lu bari et y a une sympathie réciproque bu leen boole woon mais est-ce que avec Aminata Touré jàpp nga ne politiquement euh, yéen ñaar mën ngeen bokk gis-gis par ah, xam nga bokk gis-gis ak bokk combat du benn am na ñu bu doo da ñi nga bokk gis-gis rek ngay bokkal combat day compliqué bu am na ay combat yoo xam ne xam nga Mao Tse-tung dafa ne woon la contradiction principale et la contradiction secondaire daan xeex ak cànkaay cek xeex yu metti arme reyante mais ba japonais yi agressé ñu ne bon stop ñu xeex japonais bi ba pare ñëwaat ci suñuy business mhm. ça veut dire moo tey moo je veux dire bu am na ay questions nationales yi ñëw troisième mandat euh, parrainage et cetera et cetera am nañ ci ànd bu bu bu paree nag ku nekk nekk ci li